kon mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo Wassare Sunugal 24 ak Kewel Info ñu ngi leen di nuyu leen si tey nag dañu am ku ñu seet si fi nga xam ne moom mooy Kër Massar wala jaxaay ñu koy wax zone technique nekkoon ci làmb ji daan bëri tey nag ñu gis ko ci beneen facette moo tax ñu ñëw nag ah bëgg a xam moom zoo kañ la bàyyi lam la ko bàyyi loolu lam ak ci fan ci lu muy yëngatu zoo ñu ngi leen di leen ziar. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay ñu ngi leen di nuyu waa làmb yëpp ñu ngi leen di nuyu suñu njiit président Macky Sall danañ koy sant waaye daal di koy sant bu baax di di gërëm ak lu baax yëpp bu nga di ko di ko siyaar bu baax a baax di nuyu ancien gloire yi di nuyu manager yi di nuyu entraîneur yi di nga xamante ni moom wax dëgg yàlla ñu si làmb yi ñu nit ñu ngi siyaar bu baax a baax a baax di ñaanal suñu mag làmb yi ñu fi yàlla xare leen àjjana suñu fooyee su seen kaw yàlla yóbbu leen ci àjjana yi fii daw si mbër yu mag yi xamante ne des yàlla yokk seen fan bu gudd wéral seen cër loolu nañ leen di nuyoo kontaan nañu bu baax a baax a baax. Zo ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare léegi bu ñu question bu njëkk bi Fatma lan la loo koy laaj. waaw man nag wax dëgg yàlla maa ngi 2007 laa doon ci làmb ma pat nag ci àll bi yu bëri maa ngi ñëw ci mbapat nag ci laa nekk équipe caaro yi nekk fa mu yàgg après ñu ber suñu équipe caaro yi dem sa bopp ñu ñoom bàyyi ma yoon ak nees ma jóge fa suñu waajur yi ma woo ma ñu tuddee dama ah nit amul lu mbokk ma nekk ci xolu Balla Gaye fa ba mu yàgg nag si laa jugee foofu nag ñëw nag Ikri Serigne Ndiaye Ikri Serigne Ndiaye nag mun naa ne fa laa tekkee kon tey jii dox naa ci làmb xam naa làmb ci biir mun ñu dund nañ nag ci làmb ji am yeneen liggéey yu ñu doon liggéey indi suñu entreprise di liggéey woo ay mbër ñu ndaw jàppale leen dugal leen si ay poste di jàppale si liggéey toujours ñun ñu ngi si làmb di dox gis làmb tamit. loolu ñu dugal tey jii tamit ñu dem ba ci biir li ñu yàlla dimbali ñi nga xamante ni dañ ko liggéey ba yàlla may ñu ko ñu ñëw delloo ko làmb delloo ko si làmb parce si la ci la euh, nga xëy xëy bàyyi làmb ñu gis la ci beneen facette ci yeneen kii bi nga bàyyi làmb ji lii moo tax nga bàyyi làmb wala waaw tey jii man li may wax bëri demee man du ma nekkee ci bëri dama bëri bëri ak si sareet laa njëkkee yor sareet après dem def ko yor sama carte professionnel lépp dama ko boole woon ak bëri parce que nee nañu nag mbër bu ndaw waroo toog rek laa ko boole woon a dem nag yàlla dimbal na ma ba ma dem si liggéey bi ba ubbi sama entreprise bopp entreprise bi moom euh, tey li may liggéey fii bari na mm-hmm. damay yëngu si wàllu terrassement damay agence immobilier employé yoo xam ne ñu si bëri ay mbër lañu maa leen jël te mun naa ne mbër bu fiy liggéey mbër bu nekk rek bokkoo sa morom écrit da maa ngi leen di tàggat fi nga teg sa ñebe mu am loo xamante ni Babacar ñëpp xam na ni instant ndax gis nañu bari dañuy déposé pour candidat ci nekk li nga xamante ni président CNG gis ni allah waaw loolu bëgg naa ko leeral tuuti Sénégalais yi parce que tey jii mun naa licence bu ma yor moom la ñoom Balla Gaye yor moom la ñoom Modou tey mu dund làmb mooy li ma wax sànq rek la ci nekk làmb tey jii mun naa ñëpp ñi may seetaan xam nañ kii mooy jour technique yor nañu sama tey jii ni ma yàlla dimbali tey jii moom may tàggat ci xale yi ci jàppale looloo tax tey jii ma dem ba li ma yor nii si def si làmb pourquoi man ma toog tey jii dégg ñoo xamante ni mun naa ne xamuñu sax ñu takkee ngeen tey ñu toog di laaj seen ma ni kon anam na man mi jaar ci bëri xam ci bëri lu bari kon man tey war waruma toog sax ak li may jàppale mbëri man sama bopp laa gëm man gëm naa ne li may jàppale mbëri ñu may ni soutenir non man du ma moroom sax ñoom ñu tëdd hmm. du ma seen morom bokkuñu sax doo seen morom du ma seen morom si benn côté bokkuñu yow su la déggee maanaam kon ah. seen seen yow maanaam muy ay Keba Kanté ay Mouhamed seen ñun ñu ciy tudd yow yaa leen gën pour mën a jiite man sama bopp laa gëm hmm. man dama gëm ni man suñu ma joxee CNG billaahi wallaahi waxoon naa ko dinaa ko waxal doxal CNG jour jaawale woo CNG ak agent yi ngay defar yu mel ni. de parce que tey jii mën naa ne fii mbëru làmb boo gis ah lu mu mën a jiite bari na gis nga njiit xam nga fan lay tàmbali. Hmm. njiit si kër lay tàmbali. si kër waaw njiit si kër lay tàmbali. ñun dañoo nekk xale yi ndaw jiite. Hmm. ñu yanu suñu kër yi. di ko di ko muñ di ko si fii. boole si yor suñu assance bu boot ay xale di leen jàppale. dund ñu dara nag làmb rek la ñuy dund tey ku ma fekk fii ma naan jox leen ma équipe wala basket bi laa bëgg a yor gars yi dañ ma war a wax ne nag yow buñ buñ fontoo parce que licence bu mbër laa yor kon si mbër laay wax man du ma dellu ginnaaw mbër laa woon ba keroog may dee mus naa jaar ci bëri voilà même côté jiit bi noonu ñu lu bëree bëri waaw est-ce que tey la laajoon looy wax si loolu ci lu ma ci mun naa jiite seen parce que mënu ko jiitu parce que na kaa jiite parce que loolu mooy àdduna quoi tey jii bu ko fi yàlla tegee tamit ñun dañ koy nangu waaw mais man mënumaa nangu nag koo xamante ne nag musoo xam sax dëgg la nag xam nga sànq xam nga sànq euh, am na lu ma waxoon nee naa ñun décidé wuñu pour ñu taxaw ministre bi moom mooy décidé kuy fal ministre bi mooy xool ku ko neex mu fal mais nag ñaan nañu yàlla nag ah mu mu ñamal ñu nag parce que nag wax dëgg yàlla ñu ay xale nañ nag mu ñamal da nga bëgg daal ba daal ba def arrêté waaw waaw doxal parce que tey ah. am na ay points yoo xamante ni def nañ ko jàngal nañ depuis six mois ñu ngi ah. lépp ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi siy xool kon tey jii war nañu ñu di ñu xool ni ñuy demee tey mais ku ne am na euh, ministre moo koy def par kii mm-hmm. arrêté mais bu doon tey dafa am yow Zo Mohamed Ndao Tyson Kéba Kanté bu ngeen demee ay compétition élection koo yaakaar mu ngi jiitu. maa leen di jiitu parce que xam nga la moo tax. moo ko teg maa leen mbooloo. yaa ab Tyson maa leen mbooloo fuuf. def Kéba Kéba du ma moroomam sax si fii. maa ko ëpp mbooloo téeméer fukki juróom te xale yi mën nañ gën a bëgg. Ah. parce que xam nga la moo tax. li may jàppale mbër yàlla moo ma tiim ñoom jàppale wuñ ko ay mbër. Hmm. man de mais Sénégal yi. mais nag

muy Ama Baldé di bëre sos waa guy gi bëri naa si man guddum ay bëri man Sénégal njaay xam nañu ba pare. mais bi ngay gis cooro ni ne xam nga lu koy fay mooy ñu jàppale ancien gulaar jàppale ménager jàppale entraîneur jàppale supporter jàppale amateur yi arbitre yi tamit ñu jàppale leen parce que ñun ñëpp la ñuy jooy si làmb surtout ancien gulaar yi parce que tamit. feebar ñuy nekk ci dëkk bi di gàtt nan dund ko feebar yooyu noonu wax dëgg yàlla war nañ jéem quoi si waaw te yàlla rek tax mu daw mu feebar ci àll bi la ketal naan dund dafa feebar nañ ko dimbali xam nga te làmb suñu sport bi nekk sport boo xam ne na ko loolu la képp tamit di toog yooyu noonu nañu si dimbali mais noo gisee gars yi nag Alioune Sarr dafa jógee. loolu ñu koy wax dañoo xam parce que tey jii mun naa ne boo ma fekkee sama bërëb bii may liggéey nga may ñaan ñu dama neex parce que li may def fii ñoom xamuñu ko kenn du wax ne liggéeyul si làmb Alioune Sarr dafa teg si làmb lu métti depuis boobu ba léegi mu yor ko di doxal làmb koo xool làmb fa mu nekkoon ak tey jii fa mu ko yóbbu ba arène nationale mais kooku nag yoon lu mu sant ko bërëb dëgg la nag mbir am na ko am boo ko tollee loolu si ñëpp la nit da ngay liggéey ba fii nga taxaw keneen ñëw yeggale bu jàllee tamit dañuy xam ne jàll mais ñun taxaw ñu di ŋàññi di ko sant di gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram hmm. tey bu ñu tëjee baasu CNC bi léegi fi ñuy jeexal di dem si làmb gi nag ci boppam fan yi gis nañ coowal promoteur yi ak mbër yi wàllu avance pour bu génn am ay combat yu taxaw ak yooyu promoteur yi jël seen xaalis di joxe loolu loolu loo ci gis ak noo noo koy jàngatee. waaw loolu moom ñun gis nañu lépp nu mu demee gaa yaa ngi coow ci làmb ji ah, kii jël na avance di diw war na delloo ko xaalisam avance diw millions yi pour man loolu yëpp jarul gis nga làmb am na yenn yoo xamante ne sax dafa ñaaw ñu koy génne si image bi ay jox nañ diw 10 millions 10 millions moo des ñu koy ŋàññi si télé bi mbër mu mag bi kii naan jox naa li promoteur bi taxawu defee naan jox naa yooyu nañ ko bàyyi làmb affaire nombre la nañ bàyyi yooyu parce que tamit mbër nag boo ko tëggee combat jox ko dafa naa ne dina la soo ko jox ko avance gëm naa ne nag sax du coow am voilà loolu tamit na si gars bàyyi rek. waaw bàyyi si waaw. soo looy looy sa ambition lan la nekk président CNG. sama sama ambition mooy su may projet yaa nii. des anciens gloires. des anciens gloires. amateurs de lutte. amateurs de lutte. les supporters. les supporters waaw daa préparé boppam de. moo xool les arbitres. de la lutte.